jóguñ réagir waxuñ ci lii boo liggéey lépp lu xew nañ xam ne ñoom ñoo ah, ñoo jël responsabilité bi. waa Descos ñu ngi leen di sargal di leen nuyu seen liggéey def nañ ko. ñëw nañ fii ay yoon yoon bind ci arrêt Descos te réewul mu ngi taxaw madame la préfet taxaw na fii ñëw ca suba sa mu ne ko taxawal bu tabaxati bañ régler circulation bañ régler situation bi terewul mi ngi tabax. amul nag fu ñu jaarul ak moom ci ci ci ci un an def na ci kat kër gi quatre ans ñu nekk ak moom tribunal di wàcc.

comme que nee nañ duñ bàyyi mukk lii am dama koy wax encore kilifa yi bàyyi dañ ko da ngaa nit ki rek comme que luye nga nit ki foo xam ne maanaam fi ko luyee jaaduwul te population bi nga xam ne ñooy taxaw ci sa mbir guddeeg bëccëg suba ngoon ah d'accord uñ ci nga rocci ko jox ko feneen ah wala nga xool baay bu fekkee ne baax na mais man lu ma gën a jaaxal moom baay du ko wan kenn fuñ ko ko laajee mu daw man de aw ma ko gisuma ko ñun gisuñu état je commence par notre maire té suñu maire dina ko waxat fi la daan ñeu campagne ñu tegal ko fi chaise suñu buntu kër fi talal ko suñu làmp ñun nag bëgguñu ndimbalu kenn bëgguñu nit may ñu bëgguñu nit sarax ñu ñun liñu bëgg la clarté des choses yëf yi leer xam nga mo gën leneen amu fi wax ji tay kilifa gu nek lettre bi tek nañ ko ci ce bureau yaa xam kay xam noppi wala xam teg ci sa tànk mais nag amul lu dul jeex gis nga le cas de Mbour nii ku leen ne woon dina jël un maire condamné ko doo ko doo ko doo doo ko gëm mais gis nga lii on baissera jamais nos bras. te duñu bàyyi mu sedd ñu ngi interpellé sa femme madame Marième Faye Sall ku ne nag woon nañ la ay nervi bi xeex nañ fi la nuit à 2 heures du matin ñuy nekk fii di xeex on a appelé la gendarmerie kii mën na la wax li ñu wax. on a appelé la gendarmerie à maintes reprises ñëw ne leen ñëw leen koñ bi mi ngi toj parce que ñun fi ñu nekk xool leen nu mu mel su ay nervi taxawé fi tëj ñu ñu tëj ñu fi mën nañu ray té fi ya ko de gis nga ñen ñu ngi ni gisu leen waaw il faut ñu il faut ñu jóg ñu wax ak ñun bala muy dégénérer indi leneen fi ba bañuy dugg biir suuf dossier bi kenn mënu ko étouffer nak kenn mënu ko étouffer parce que chaque jour chaque heure dinañ ci wax waaw lool daal moy li nga xamné mom munul ñàkk te dinañ ko def ñun nag yëgal nañu ñëpp parce que toujours xam nga man dama dul nangu ñu wax état état di tooñ comme président de la république wala soxnaam non non non ñoom defuñu dara mais ñi leen jege war leen a defaral ñoo leen di yàqal soo amee kayit hmm, nga ne da am këyit da ngay tabax mais looyu wër ci koñ di wax nee leen ñu dimbale moom ma tabax day yónni ay ay ay kilifa di la wax dimbale leen moom ma tabax nañ ma may dama def prêt ah xëy na dëkkuwaayam xamuñu xamuñu ñii nga wax dëkkuwaayam ñi nga wax ni moo gorom dañuy yëkkati seen air plus nangam ba xoolal na ñu yëkkati air plus set mais gis nga kii bés bu waree wàcc état koy wàcce